kapi bi sampi bi ñëw na signé Dip Doundou Guiss Dip big retour ah yi moom rek leen doon xaar gars yi yow xaar a xaar sax bu mujj gi sax dañoo woon parce que Dip annoncé woon na fi Dip quinzaine quatre di ko annoncé mais heure su annoncé rek après bon du ñu gis dara ko gars yi nag xam nga dem ba commencé saali na waa mais Dip xanaa dafa bàyyi rap mais nag doon na def ay featuring mais Dip quinzaine bi. moo yeexoon di quinzaine quatre bi mais nag loo gis lu nekk ak temps allez les gars yéen ñi nga xam ne yéen a ngi dugg si sama canal abonné leen te boo leen abonné ba pare bu leen fàtte bés seen cloche notification ba vidéo bu mën dugal rek ngeen mën ko am Dip Doundou gis Califat comme nim mu ko waxee rek Califat égal xalifa moom nee na mooy xalifa rappeur yëpp xalifa rappeur yëpp mu ñëw tegu ci benn bidu classique bu mpeeg nice dib nag à chaque fois buy waaj dara gars yi dañ koy xaar ak doole moo xam président FIFA moo xam musiba ba ci kalifaat bi nga xamante ni ci benn temps bu gàtt la mais gars yi ñu ngi ko doon xaar xaar boo xamante ni beneen affaire la mu ñëw nag jox li nga xamante ne tey beneen public bi dañ ko namm ci new génération bi muy classique boo xoolee bëggal na melomaan yu bëri yoo xam ne namoon nañ ko ci new génération mu xam Dip moo xam ngaaka mais Dip dafa ñëw fekk si si gars yi si li nga xamante ni ñoom tey dañ ko namu boo xoolee ku si mel ni pidi bu fukkeen kook partagé na ko yéen jooy riifu DJ Ala di ko bëggee di ala bu yu kunkung ak sa projet yu nice yooyu ngay def muy euh, empire hip hop maa ngi la ci wax big respect allez gars yi dama leen ngeen seetaan ko mi ngi ci YouTube euh, mu bind ci euh, hip hop empire boo xoolee légende yëpp ñu nga fa ku si mel ni Max Crazy Xuman ni Dof Big ji Euh, euh, vraiment gars yi ñu ngi ñu ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi dekkilaat loo xamante ni tey nii gars yi namm nañ ko loolu juste parenthèse la woon pour big up le grand DJ Alla kon euh, Dip ñëw ci côté boobu nga xamante ne tey jii nii public bi nam namoon nañ ko muy classique beneen bi sopp muy côté communication Dip à chaque fois buy waaj dara wax naa ko sànq day am benn Euh, effet bu muy def boo xamante ni xaw ma liy tiital rappeurs xaw ma qu'est-ce qui se passe xam nga ba benn instant moom a chaque fois buy ñëw day wane ni bon Khalifa comme ni mu ko waxee ah, benn benn benn benn king mais dem na ba benn instant sax moom teg na fële bi xalifa la xalifa Khalifa Khalifa king yi ba pare nag son bi égotrip classe wax li nga xamante ne tey moom euh, depuis lors mu ngi tëju xam nga di liggéey te bu ñëwee xam nga gars yi nga xamante ne tey nii dañuy xaar dip xam nga bu defee son pour classe yi ñëwante mais cette fois ci nag euh, je pense que am na différence comme par rapport ak boo xoolee euh, bi muy doon génn ay musiba ak euh, yeneen mm, FIFA classent yi wan lyrical fii ngaa ko fii mais cette fois ci gars yi dañoo resté cool gisuñu kenn koo xam ne def nga rubrique si son bi nii pour waajal dara xaw ma nag dañ koy def tempo pour bett gars yi comme moom ni nga ko defee mais ñaakul moom euh, peut-être balaa semaine bii di ñëw di ñàkk gars yi ñoom tamit ñëw ci beneen côté moo xam Akhlou Brick euh, di dund euh, kii Ngaaka wala récemment One Lyrical ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mais gars yi moom instant bi ñi ngi togg moom ñi ngi togg ndax déjà léegi ubbi na carte yi Ngaaka moom waxuma parce que moom franchement mi ngi doon def ay production mi ngi ko doon def di wax gaay ni euh, surtout ci côté euh, entre euh, dib tegu na ci classique bi nga ka day def mbalax bi rab mbalax bi genre affaire bi bon deug la ku nek ak li nga feel pour def xeyna peut-être li nga di def mom mu ngi ci gis bopam te ku ne xam ni nga ka mom bu dé ku xamanteni ci walu rap classique ñu bari ci lañ ko xamé ta mo ñëk pël dib donc dib diko fight diko fight diko fight ba aksi fi ba tay ji ñom ñaar nga doon ay concurrent entre nga kon cest dit que euh, affaire de yëg-yëg la rek si côté euh, musique ku nekk ak fi nga ko filé pour teg ko mais Dip son bi dafa dundalaat tey melomaan yi nga xam ne namoon nañ rap en tant que Dip donte mi ngi ko doon def mu ñëw tegu ci bitu classique te son bi nice franchement dafa nice par rapport nag boo xoolee comme yim jot a dem moo xam musiba wala soit euh, président FIFA Lolo gars yi dañoo defoon challenge nga xamante ni moins vingt heures mu am un million de vues voilà mais cette fois ci son bi boo xoolee euh, duré deux jours euh, yéegagul ci million de vues mais xam ni sa la jëm te vidéo bii si a def xaw ma nag waxul chiffre yi ci def ci mais si def comme musiba ndax boo xoolee tournage da ngay xam ni lii koppar la xaalis tëgg la mais nag am na ko franchement parce que ku décroché ay ay contrat ak ay euh, entreprise yu mag euh, defe naa ni comme genre vidéo yi nii euh, nekk na vidéo yoo xamante ni loo ci def bon après contrat yi dina la ko fay parce que contrat yi aussi nga defaat vidéo yi Euh, je pense que c'est moo nekk li nga xamante ni tey euh, semaine bii nii ñu ñu ñu ñu ñu ñuy parce que euh, déjà déclenché na mbir te instant bii wax rek yi la politique politique politique mais au moins sax lu ndax bi chaque jour wax business xam nga ndax lii nii la ñuy la ñu am la ñu am donte rappeurs yi léegi defe naa ni ñu si bëri si politique bi lañ gën a concentré wu wax politique guddi wax politique bëccëg je ne dis pas ñëpp nag waa xam nga mais ñun tamit yaakaar naa li ñuy nekk di mbel mbel di ko wax bu njëkk yooyu yëpp mën nañu ko ñëw def ci son ci tolluwaayu dëkk bi te rappeurs yi euh, fàttaliku leen ay temps bu ñu mosaan toll si jamono ji dangeen jël seen xalima ngeen kaasal maanaam euh, li nga xamante ni askan bi moom la ñu soxla mais léegi da ngay gis rapport ku nekk jël position fii laa far fee laa far mooy loolu nañ concentré suñu hip hop bii bu ñu amee lu ñu metti ñëw teg ko si biir bon ñu wax ko c'est mieux vraiment donc loolu laa indi woon juste rek ci loo xamante ni euh, ci projet DIP bi nga xamante ni mooy Califat vidéo bi disponible na gars yi allez ngeen dem seetaani ko nice na trop trop trop trop trop juste du euh, question de réaction bu ngay def wala di tirer wax na fii punchline pic na fii façon bi ñëpp ko déglu bon lu ma fi ñëwaat di wax loolu yëpp gars yi wax nañ ko mais juste damay def benn analyse allez les gars yéen nga xam ne yéen ngi doog a dugg ci sama chaîne Doss abonnez-vous te bu leen abonné ba pare bu leen fàtte ba seen cloche notification ba vidéo bu ñu mën dugal rek ngeen mën a